mais c'est une vérité. damay xam mm. Mm. télescopage mën am décision xamni ni fal. décret parce que nak wax na la. Mm. dañ koy daté rek décret jour bi ko préparer décret bi koy date bi période ko D'accord. alors tey eh, ban jeexantal eh, la ci am eh, bis bu njiitum réew mi ñibbisee ci mais attends si c'est le président il va mettre remettre les points les points sur les i à son premier. il doit parce que c'est une obligation. revenir remettre demander à son premier ministre de revenir à la raison. pour wax ko ne ko politique diplomatique bi donte li ngay wax maak yow ànd nañ ci mais kenn du ko fësal ci kaw bàyyi ma ma négocier. ñoom ñaar mën nañ ànd ci vision bi Ousmane ko wax mën nañ ci d'accord mais ah la diplomatie n'est pas dafa jiitu paaka ci mbartam. dafa jiitu paaka ci mbaram. diplomatie n'est pas bavarde. ñaata voyage la fi dem. Hmm. ñaata dëkk la fa dem. Hmm. c'est de la diplomatie. exactement. dégg nga communiquer. Deng wax ju bari et pourtant il pose des jalons pour raffermir les les liens entre ces peuples là. à part les déclarations officielles. Mm-hmm. deng Lenen. diplomatie dafa la discrétion mom ak sécurité yëpp. 88 628 73 73 45 33 800. ak ñu jeexalee ak benn actualité bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Amadou Ba mi nga xamante ni ma ngay créer bennoo boppam. bennoo la euh, bennoo boppam. parti boppam loolu lay ah benn day créer parti boppam. ah daa mel ni bennoo boppam lay créer ndax. Euh, non non damay laaj ndax day créer parti boppam. dem ak moom demam nga ca ca Touba laaj nañ ko nee na dem fa ngir politique dafa demoon ngi seeti xalif général. mais ñi ma àndaloon ñëpp dañuy politique. ah loolu xaw a jaaxal nag. rax si doole ñam àndal Aminata Mbengue Ndiaye ak ñoom ñeen ñi ñu dama ne. Hmm. ñi mu àndal yëpp. amee dem fóon pour politique la dama ne la muy àndal yëpp dañuy politique. nee na teel na pour mu wax ci gars yi ndax ñeenti mois rek la am nañ bàyyi ñu liggéey su waree wax dina wax. dama ne. Hmm. ñi mu àndal yëpp dañuy politik lu mu bëgg wax foofu kon. te ñi mu àndal yëpp. Hmm. dañoo démissionné ci APR ñu ci bari. beddeeku beddeeku. ñi mu àndal yëpp décret moo moo leen lii woon ak Macky Sall hmm. yaakaar nañ ne Amadou dina falu dinañ ci am décret wala yaakaar nañ ne dina am majorité dina dina am ay député ñu bëgg caa bokk pour am nga mbaraanu kiiraayu assemblée nationale. intérêt kon intérêt bi moo lal ci lépp. moo lal ci lépp. pas intérêt askan bi waaye intérêt personnel. de waaw simple. dama dama Ba ci tuuba lan lay lan lay lan lay màndargal ñàkk ñeme fu mu jëm maanaam demoon di waxtaan ak xalif bi bu tàggoo yëglu yëglu ah. maa ngi ni suba mën naa mën nga maa dégg parce que nag xam nga man bëggumaa jiitu paaka ci mbaar xam naa ko man ah yow mi waaw Amadou Ba waaw parti bi bi mu jëm ban parti bi muy créé ban la xam naa ko ban parti la xam nga nee naa la dama bëgg bëggumaa jiitu ah. paaka ci mbaram mais nañ ko waxtaane Adam du dëgg nañ ko waxtaane mais mais ah, Adam nañ ko waxtaane waaw déglu rek waaw Mara parti bi Mara bëgg ma nga dem après soit politique waaw courage la laaj parti mm. courage la laaj mm. politique mm. courage la laaj mais na rafet rafet ah, ah lan la ñaawal xam nga lu tax mu ñaaw ah. ñetti weer la waaw ñetti weer la waaw lan moo fi lan fi kan moo doon kat moo doon wax ne man xaw géométrie loyauté à géométrie variable moom moo ko doon wax non. waaw lan moo fi soppeeku. daara soppeeku. waaw ba ba ba ba ba ba ba ba loyauté bi dañ. am na droit tamit visionnaire. xam nga lu fi soppeeku lu fi moo fi amatul su fi décret amoon. Amadou démissionné Aliou Sall du démissionné Latif Coulibaly démissionné ñi mu àndaloon yëpp du ñu ànd ak Amadou. décret fi amatul. ah ban ànd. xam nga tax ma la koy wax. Hmm. Amadou dindi nañ ko ci gouvernement ñaari at. waaw di xaar. Hmm. ko tere woon dem. la waxee ne man xaw ma loyauté à géométrie variable. ndeysaan la ko waxee nañ ko ñaari at. Hmm. bokkul ci gouvernement. waaw mu toog di xaar. ba keroog ñu koy def. ba décret ñëwaat. maa bañ koy def premier. premier ministre ministre décret maa ko digoon nañ ko daal. du dëgg. te ñi mu àndal ñëpp. Mm-hmm. décret moo leen fa bàyyi woon. Mm-hmm. décret bi amatul. Macky mënatul signer décret. Ah, amatul kii ba. parce que il n'est plus président de la république. Cheikh Omar Anne décret moo ko booleeg Macky Sall. Mm-hmm. moo ko dugal APR. Amadou Ba décret moo ko dugal APR. Aliou Sall magam nekk président de la république moo ko dugal boo ko fa woon. wala. waa PS ak waa ASP Macky Sall dem deuxième tour moo leen booleeg Macky su seen pexe juboon ñoom duñu falu Macky du falu ñoom ñooy falu mm-hmm. Zahra Iyane Thiam décret moo ko booleeg Macky mm-hmm. moo ko booleeg Macky Sall mm-hmm. wax ma keneen ku ma ki ma Pape Samba Diop ak jëlee ko de ñëw andi ko sommet dafa teel beru bi dafa tel wor gi dafa teel. beddeku bi beddeku bi dafa tel te ñot nañ ni te dafa ñaaw. ñot nañ ni kenn du transhumé. parce que Macky Sall amatul décret motax pam Pape Samba Diop dem. que ñom dañu baye ak Macky Sall lu mu yor. fàtt nañu dem. te looloo am. askor de du fàtte démb. fatte nañ dem est-ce que and googu and moo motax ma leen nak li ñi ànde won Macky Sall seen intérêt bop la. kon ñu ko looloo loolee ko. te tey moo tax ñu daw jàpp ne Amadou Ba mooy la mooy moo nar a fàllu suba. dañoo am yaakaar mais moo tax ma ne la ku gis nga réew mii. Mm. ku lëndëm. Mm. ku nekk ci lu ñuul. Mm. doo fi falu. ah mais mais parti boobee euh, pommeteer yu nëb yëpp ñoo ah. loolu moom ba ba. pommeteer yu nëb yëpp ñu ngi ci ah. biir parti boobee. waaw waaw ñu jublu. ah mooy ñi nga xam ni. leneen moo leen boole woon ak Macky Sall mais du loyauté. tànk la hmm. Macky Sall jël ñi mu àndoon ak démb ak barki démb hmm. neneen duma dama koy jox ñi nga xam ne dañoo wàlliwaan ñëw hmm. tey am nañ ñu ci gore toog ci ñu nga xam ne décret leen booleeg Macky Sall am na ñu ci gore toog kenn déggu leen Ablaye Seydou Sow dafa gore toog kenn déggu ko Omar Sarr dafa gore toog kenn dégg ko mm. Mamadou Diagne Fada dafa gore toog kenn dégg ko mm. keneen ak keneen dafa gore toog kenn déggu leen ña sosoon biir APR ña sosoon APR démb ak barki démb ñu ngi gore toog kenn déggu leen mm. Biram Fay mi ngi gër kenn dégg ko Thérèse Fay mi ngi gor a toog kenn dégg ko Seydou Gueye mi ngi gor a toog kenn dégg ko ñay gore kay ngay gore ba tey ñay mais ñi nga xam ne décret moo leen andi woon nag mm. xaatim te mm. Macky Sall di ko signé mm. ba décret jeexee dañoo génn dem seen yoon jël seen yoonu bopp ñu jël kiy woote